saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk leen ñu dalal guy gi le roi di sempi moom guy gi bu école de lin mor fadam bu géejawaay dafa mel ni ñaawal Ama Baldé moo ko tax a jóg combat mbaag sa bu ndaw ba léegi fàtteegu ko ndax bokk na ci combat yi ko gën neex ba ñu ko laajee lan moo la gën neex ci sa carrière la mu tontu mooy keroog ba may humilier Ama keroog ba may daan sa bu ndaw en 2012 daal bokk na ci li ma gën neex vraiment humilier sa lubu ndaw ba ñu ko laajee lan moo la gën a naqari sa carrière it la mu wax mooy sama diggante ak Ama Baldé confrontation sama diggante ak Ama bokk na ci li ma gën a naqari ndax dama koo daan ñu tasewaat TNT ma ne fa ma jaaroon laay jaaraat na ma ko defoon laay defaat ma entraîné ci ba forox toll préparé ba préparé fu dara nekkul waaye ngan di maami déception lañ jële ndax combat ba mujjul àgg combat ba àggul amul ñépp danga gone yoo xam ne bu caméra tàkkee ba tiim leen rek lu leen neex la wax naan jox leen ma guy gi jox leen ma guy gi waaye gone gu ciy lappi-lappi ba suñu combat taxaw da xam ne guy gi du ñeexum ñebbe waaye man day mbill bi combat gi may reefe combat bi ma soxla combat bi may wër mooy sama digganteeg Eumeu Sène sama digganteeg Eumeu Sène bu taxawee da gis beneen guy gi bu wuteeg bi xam ngeen sama digganteeg Eumeu Sène képp kuy amateur mooy Modou moom le roi des arènes démb la papaam góoraloo génn àdduna tey la ko fas yéene jébbal boroomam ca yoof loolee nag naqar bu dal ci kaw roi des arènes la waaye dalaale ci kaw axlu làmb mbooleem kuy mbër nekk ca Parcelles Assainies démb yaa nga woon ca Modou muy Papa Sow Yékini Franc ñoom ñépp ñu nga woon ca Modou dëdd nañu ba faaw moom sunu papa góoraloo ñu koy ñaanal yal na suufu yoof oyof ci kawam yal na ko yàlla xaare aljana te atte Sarr ñëw ma tuccu tuccal ko gone mooy ci a ngi liggéey lu metti guddi yi ci ki war a wutu Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass Gris Bordeaux bu décroché am na keneen ku ko war wutu ka ko war wutu nag Fass a nga cay liggéey liggéey bu metti ka ko war wutu du kenn rek waaye ab groupe la ñuy ña war a gérer ginnaawu Gris mën nañ caa jàpp Gris 2 Serigne Ndiaye 2 Pape Ndoye Tafa Junior ak Forza gone yooyu la ñuy ngir ku taxaw temm doon le quatrième tigre de Fass jërë ngeen jëf mbokk yi li mu nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu allah